benn question laa lay poser pour commencer tey Senghor bu dekki woon est-ce que jàpp nga ne dina fier tey ci parti socialiste. waaw euh, maa ngi lay euh, remercier laaj bi am na solo. Mhm. parce que dafay doon laaj boo xamante ne euh, dafa bokk ci histoire politique gu Sénégal. Mhm. bu ñu nee parti socialiste mooy premier parti bi nga xam ne moo nekkoon avant indépendance indépendance. Mhm. comme ni nga ko xamee. alors euh, man personnellement je suis originaire du parti socialiste mais bokkuma parti socialiste. ok man maa ngi bokk euh, AFP. Mhm. mais euh, ñun ñëpp fa ñu juddoo. Mhm. fa ñu jaar donc je pense que historiquement. Mhm. dafay parti bu mag et comme on dit le père de l'indépendance ici c'est le président Léopold Sédar Senghor. donc je pense que li ñuy jàpp ci ay kàddoom daan na wax ne l'an 2000 Sénégal dana mel ni Paris. Euh, la première question parce que xale yi sax mun naa ne baat boobu nañuy gën di jàpp tey fan la Sénégal toll ah ba Sénégal dooree dëgg la ñi nga am indépendance soixante mais mun naa ne premier gouvernement du Sénégal mi ngi taxaw en tout cas en cinquante sept euh, démocratie bi jëm na kanam liñ ciy mën a jàpp ci Sénégal muy suñu fierté ñun ñëpp mun naa ne tey yàlla dogal na te yàlla na jëm kanam muy benn réew bi nga xam ne Euh, mun naa ne amul coup d'état en Afrique muy loo xamante ne c'est extrêmement rare beneen bi mooy diversité bi diversité bi am na solo mooy li ñuy wax démocratie di fàttaliku première partie de l'opposition au Sénégal sous Senghor mu doon parti quand même de contribution pour ne pas revenir vers l'histoire moo doon le PDS tey boo xoolee yeneen partie yi nga xam ne juddu nañ ci gannaaw donc loolu yëpp dafay wane liberté d'expression bi nga xam ne moom nañu promouvoir démocratie nag mënoo ko sorele trop ak li nga xam ne mooy en tout cas koomu dëkk ba maanaam euh, économiquement fan la Sénégal toll liñ ci mën a jàpp mooy Sénégal tey Sénégalu Senghor li ñu jàpp tey mooy ci jamonoy Senghor nañ commencé di wax pétrole mais tey mun naa ne dafay loo xamante ne réalité la donc peut-être mun naa ne ci la président Senghor sukkandiku woon sax pour ci projection yi mën na en tout cas euh, jàpp ne Sénégal doonoon na mën a am mun naa ne une certaine autonomie financière mm-hmm. niñ ko mën a wax mu war a nekk benn puissance économique fii ci Afrique ax ci àdduna gis nañu ne que tey chef d'État yu bare ñi ngi ñëw Sénégal di ut li nga xam ne mooy accord de partenariat. Mm-hmm. parce que partenariat aussi dafa bokk ci li nga xam ne mooy développer dëkk. Mm-hmm. léeg di nga dugg ci secteur yoo xamante ne mm-hmm. li la ciy mën a jàppale mooy nga am en tout cas li nga xam ne mooy crédibilité te crédibilité boobu dafa nekk à tout les niveaux. te jàpp nañ ne que tey Sénégal en tout cas bu deux mille vingt deux bii ñu nekk. Euh, bu fi président Senghor dellu si waatoon dana gis ne que wax dëgg yàlla euh, Sénégal évolué na bu baax a baax. Mm-hmm. mais njabootam la famille socialiste comme nu ma ko expliqué au début gegeer yu fi am ñii ci majorité bi ñii ci opposition bi kii demee noonu. waaw mais xam nga loolu du ko neex tey aujourd'hui waaw dana ko neex du ko neex xam nga euh, borom kër dana sañ ci këram. Mm-hmm. nga dem ba egg niveau boo xamante ne. Mm-hmm. da ngay xool sa njaboot euh, man li ma jàpp mooy li ma wax sànq économiquement pour le Sénégal moom lay dellu si politiquement pour le parti socialiste c'est vrai que l'idéal aurait voulu que ñoom ñëpp ñu ànd bokkandoo fi ñuy xoolandoo mais nag euh, parti dana egg niveau boo xamante ne liñ ciy xalaat ñëpp du ñu mën a bokkatoo parce que nag dafa bari ay génération ñuy am boo gisee génération yu magu démb yi militant parti socialiste su démb ak yeneen parti yi sax nañ daan fonctionner nañ daan doxalee ax boo xoolee tey militantisme bu bees ni ñu identifié wu du benn pratique yi du benn donc am na ci yoo xamante ni ci biir mooy li ñuy waral faral di wax ci politique il nous faut régulièrement renouveler les structures loolu bokk na ci li nga xam ne dafa indi faiblesse ci parti parce que bu renouvellement indul rek système blocage dafay am bu ñu nee renouvellement c'est forcément rajeunir mm-hmm. di nga gis partie yoo xamante ne ka fay responsable jën bu taxawee nga gis ne que kii cinq ans que dese mu jël retraite yooyu aussi bokk na ci ni ñu mën a wax ay euh, force vive maanaam énergie bu ñuy asphyxier parce que xale yi dañ leen di teel a tàggat boo xoolee premier gouvernement du Sénégal ñu fi nekkoon mm-hmm. en tout cas biir parti socialiste ña fa nekkoon c'était des tout jeunes cadres la moyenne d'âge c'était entre trente mais tey par exemple boo ñëwee quarante ans tellement que tàmmu ñu def renouvellement yi dañuy jàpp ne que aujourd'hui euh, xale nga mhm. alors que jeunes yi seen moromu jeunes ñoo mën a wax ak ñoom dañ leen war a préparer initier leen ci ay responsabilités de telle sorte que ëllëg boo ko joxee dana xam la nga koy jox lan la mais bu fekkee da nga bëgg jël quelqu'un nga koy doog a jox responsabilité à 45 ans dafay doon loo xamante ne phase préparatoire am na lu bari loolu ci rëcc donc yooyu gis ñu aussi bokk na ci li gàllankoor en tout cas système mu parti politique yi et il est important et c'est valable pour tous les partis c'est pas seulement que le parti socialiste renouvellement dafa am solo. renouvellement ñu koy wax aussi ñu ñëw ci peut-être. le ka xalifa Sall mi nga xam ne ni aussi moom ngay jàppal tàng même bu dee di ñu leeral tax ne nga AFP nga bokk AFP aussi nekk di jàppale xalifa Sall yi tout loolu aussi bëgg leeralal ñu ci tuuti avant ñuy ko tëral. waaw xam nga xam nga loolu. dafa nekk un cas assez complexe pour ku comprendre. Mhm. dafa am lu ma la wax ci politique jamono dafay dox. te kii nekk ci politique ci dox. Mhm. di suivre li nga xam ne mooy actualité bi. Mhm. maanaam li dëppoo jamono. kooku mooy ki nga xam ne dana mën a xam. réalité politique ak position bi nga xam ne nit ki teg na man je suis un militant de l'AFP ànd bokk ak euh, parti socialiste parti classique yi nga xam ne ñoo fi nekkoon taxawal kuréel gu ñuy wax Benno Siggil Sénégal Benno Siggil Sénégal ñun ñëpp boo fàttali ko 2012 ñoo demoon élection mhm. donc doon prôner une candidature unique mhm. ba malheureusement à la dernière minute. absolument éclatement am. entre Tanor alors bi éclatement amee mu am nag réalité politique bi ma la sur le terrain. Mhm. moo indi yenn position yi. xalifa qui est du parti socialiste position bi mu jël. Mhm. man qui suis de la l'AFP position bi ma jël. Cheikh Gueye bi nekk LD position bi mu jël ax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. et on s'est retrouvé dans un cadre. bi nga xam ne moom nañu wax Benno Siggil Sénégal. donc ñu jugee ci nekk ci biir. ensuite dem à des élections locales taxaw daal di euh, mettre en place taxaw Sénégal donc loolu aussi mooy li ma lay faral di wax rek lii mbir mi di dox di dem di dem di dem tey moo indi cadre bi nga xam ne moom lañ ci nekk mais jàpp nañ ne que aussi euh, boo xoolee malgré les cadres ak force politique ni ñuy taxawee boo demee élection da nga naan pourtant coalition bii nga xam ne am na taay bii ba résultat yi génnee gis ngeen na mu mel moo tax souvent il faut que li may faral di wax li nga xam ne moom la ñuy théoriser toujours na méngoo wax li nga xam ne moom la ñuy fekk sur le terrain donc ci tënk loolu moo indi tey ñun ñëpp ñu nekk ci biir Yewwi Askan Wi parce que maa ngi tàmbalee ñun la première coalition bi ñu nekkoon c'était le CPC en 2002 cadre permanent de concertation boobu fekk na les socialistes venaient de perdre le pouvoir donc ñu enchaîné que muy dem di dem ba aujourd'hui ñu ngi dans cette coalition bi nga xam ne moom la ñuy wax yeewi askan wi te gis nga li dolleeku ci yeewi askan wi mooy intercoalition muy loo xamante ne c'est une première donc loolu yëpp dafay firndeel ne que ñun ci yëngu-yëngu politique yi nga xam ne moom lañ ci nekk ànd ak askan wi euh, wax dëgg yàlla gis nañ ne askan wi aussi jox nañu loxo parce que je pense que les derniers résultats comme résultat euh, élection locales yi en janvier 2022 wane na li nga xam ne mooy euh, démarche politique yi nga xam ne moom la coalition yi di am te presque déggatoo sax partie da ngay dégg rek ñu ne la fii la bokk waaye coalition bi Benno Bokk Yaakaar ñu ngi nekk coalition Yewwi Askan Wi Wallu et autres